yaa ngi nii. naka waa. rek sant yàlla bu baax yàlla min bi ñëwti na yàlla min afeña naf yo naf yo koy ñaajaaw lig rek maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax nuyu sama mbokku pël yi bandarade alpulaare mi calmine léegi ñu ñooy pël yi jël nañ lépp xam nga rek nee naa leen xale fem xale doole boo jekkoo da ngay soxat boo màttee bu dage bu dugg doyul foog nga mucc deret ji bu deret mu leer la jeex bul bàyyi gën a la gëm bu màtt li may def aw ma ci yërmande mhm. te nee chaque dimanche ñu tàqale maa ngi fa yëkkul mais ko daa mel daa maara yu lay tey. maara affaire ni muy demee de. yow man li ma yow yow yow man li ma yow bu ko maara mënoon defi million. <laughs> li may def bu ko maara mënoon defi million de la am ci barke yàlla. mais yow fan nga tegoon Lac Rose tey lambam la. donte daanu sax waa ji le sport day wax gis nga sport dafay wax foog nit ñi xam loolu. hey eh, Sénégal yomb na ñuy woowee nit champion parce que dafay daan ay. champion yo xamné ci mbapat mais dafa champion plus champion plus caractère lay champion plus va pas dans les détails champion plus fay am focus ci manche ci man ci ci manche au sport fay am focus ci mouvement au focus da am bari et eh, mbër damaa xool fils de Balla mbër mu xool la Rose ma ne est-ce que Lac Rose ba woon dañ ko war a suul mu de ma ne su ko defee du may sportif ma ne ok léegi nangu naa ben affaire damay xool trois premiers combats wu fils de Balla trois premiers combats wu Lac Rose ma gis la nag bëre ma gis la fils de Balla bëre ma ne pourtant jamonoy Lac Rose bi moo gënoon a xotteeku jamono ji parce que jamono ji jamonoy internet la jamonoy Lac Rose pour nga doon làmb dëgg faw nga wane sa bopp te bu leen fàtt ne Lac Rose bi muy feeñ faas ñoom fa fekk dañoo bëri ay ñoom Balla la fa fekk ay ñoom ay ñoom ay ñoom Papa ñu nekk seen digg ndënd na ah. bàyyi ci xel bu baax ay ñoom Gris Bordeaux boobu Gris Bordeaux doonagul sax le bi fexe na ba génn ci seen kanam eh loolu lan la woon dañ koo montel fit kenn montelu ko fit La Rose ñala la daan bëreel ñala la daan n'a pas la da nga dem ba tollu ben instant nga perte nga perte confiance en soi perte confiance en soi ou la Rose dafa basé wu ci tankam te it xalé yi de yaa kon ñaaray mëna que ça soit da ngay doon professionnel nga concentré nga nek euh, période compétition nga nek période compétition

bi nga xam ne nii waa Fass des fois dañ koy amal amal gaam naan non booy bi dëkku fi booy bi Kër Tafa Gueye la nekk mais booy bi représente fas booy bi c'est le digne futur roi des arènes Serigne Ndiaye c'est digne man gëm naa ne biir Fass ku fay indi roi des arènes Serigne Ndiaye la Ada Fass ñaar ñooñu ko yaakaar man personnellement mais ci kaw ñu vous Lab, suivre pour sport c'est très important kon tay la grosse duñ ko fatel meuna beure mo dafa dem bu mujj am lu ci ndax mi ngi la waaw confiance loolu mais mbeur bu lool jallé damay dem ci fils de balle pour wax la raison raison bi la lay euh, fils de balle état physique Fils de Balla mi ngi bëgg yàgg ci làmb Fils de Balla bëri ay combat di daan di rangale di dem Fils de Balla état physique d'accord ma ci moom du càgg ne lim indi ndax baax na wala baaxul ne mais damaa gis ne lim indi tey da ko woon beneen équation ci wàllum sportif tey Fils de Balla indi na poids boo xam ne nii biñ ci doon déplacé wu di ko moom mais poids bi dafa restreint dafa am fu nga koy yemloo tey looloo war a wanal ne Fils de Balla da nga war a doon athlète athlète nag moom mooy lan boo jàkkaarloog mbër foo miimee explosif bi nga war a def mbër bi da ko war a sentir looloo waral Lac Rose amoon temps wu rappel la rappel la dóor la bëgg a tourner te mais fi de Balla ak pois bu mu est-ce que mën na explosif moo tax ma ne la d'accorduma ci état physique bi looloo tax ma ne la d'accorduma ci état physique bi Fils de Balla war naa mën a nammaat état physique am façon boo xam ne nii ñun danañ ci taxaw danañ ci xeex danañ ko reyante pour l'admission, am état physique l'explosion. xamné ni l'admission la compression et l'explosion ñet mhm. donc normalement ça, ci quatre temps mais quatre temps bi bi d'accord mais l'admission la compression et l'explosion Fils de gis ne loolu dafa manqué woon tey ci compression. état mbër dañ doole ba jox la exemple ne la tey Cheikh athlète la ñu ne fan la Cheikh athlète ñu ci physique maanaam am na condition. right waaye Cheikh est-ce que am na doole ñu ne la doole. kon conditionnement Cheikh mën na la sonal ci condition day fekk du ngeen laale du ngeen jàppante benn nga noonu ñaareel bi ñu laaj na la ndax Cheikh am na explosion ñu ne non Cheikh amul explosion parce que Cheikh ci entraînement am la ko war a mën a permettre muy def l'explosion du ko def parce que mbir yi dañu topp din topp gradé dina ak gradé mënu laa may explosion dama koy waxaat mu leer toujours c'est l'eau lu low lay doon lu deep lay doon maintenant pour nga am la transformation entre force cardio l'explosion bi pour nga boole leen pour ngeen fusionner leen loolu la mbëri war a dem outil ma ñëw ci làmb gis na sama adversaire bi dafa am physique bu baax adversaire bi gaaw na comme Sa Thiès Sa dafa am explosion

benn bu nekk du bàyyi moroom ja dañoo war di ànd sinon boo dajee mbër bi nga xam ne ni moom moo la ëpp un peu benn atu rek day feeñ après. mais Fils de si état physique bi lan nga koy doole loo ci. dama koy daggaat dama koy wàññi. Fils de Balla warul cóobi. Fils warul am biir. Fils de Balla dafa njool gàttut. Fils de Balla dafa war a dagg. Lac Rose forme Lac Rose forme bi des na baaxu na ñoom ñoom waa Fass xam nga ci lu wu ci conditionnement bi manam cardio bi si dernier combat liko li ci lañ hmm. liggéey mais liggéeyuñ ci physique physique bi mom c'était la merde moom moo bëggee dégg-dëgg mais bravo à la grosse bravo à la grosse quand même parce que a boo dee tegale ay nga ñëw ñu war la bolé benn booy bu décisif boy boo xamné ne néewul donc moy loolu kon mom état euh, kon maanaam coach euh, Lac Rose tey bi baax na quoi. waaw mais nag baax na ci kaw moo dirigé <laughs> yaa logique ah moo dirigé Lac dafa gérer combat am. Mhm. dafa gérer combat am. Mhm. Lac Rose daa bari combat am. mais dañ ne woon combat bu yàggee maanaam fii la laa la waxoon keroog bi ma toogee ci sa live bi combat mën naa yàgg te biñ naan la gros dafa sonn contre kii la laa la wax ma ne la ci pression boo ci nekkee mouthpiece bi système de respiration bi boo ko maîtriser wul boo dee entraîné doo kii yooyu c'est normal day couper sa respiration mais la gros il a bien maîtrisé xool koog mouthpiece bi nu mu doon def buñ jàppante xool day génne mouthpiece bi di respirer normal <laughs> loolu loolu jot na koo déglu mais si côté xeex bi. waaw naka nga gisee seen xeex yi ñoom ñaar. Lac Rose moo moo moo daa xeex moo daa xeex moo daa xeex bi Tapha Tine. moo daa xeex. oui loolu bi téléphone am c'est xeexam du kaay ma attaqué la maanaam réplique na maa nga ko doon wax Lac Rose xeexu réplique la man maanaam nga dugal sa loxo wàcc moment bi ngay waaj a yéegalaat sa loxo foofu dara la fa dugalaat dugal yu métti. Mhm. waaw ah. kon xeexu réplique la mën te boo xoolee bi muy dóor Fils de Balla ba muy tourné sax xeexu réplique Fils de Balla ñu ko dugal. Mhm. yaa ngi maanaam yow euh, bu bu bu fekkoon tey yow yaa indi Fils bo Balla bokk. Mhm. lan lan nga koy tegloo digganteem ak Lac Rose ba nga gisee état Lac Rose <coughs> loolu c'était trop tard mënoo koon tegloo dara lu mu gérer combat loolu wax naa ko nee naa la combat bi jeex na a deux semaines en arrière bi ma gisee Lac Rose jóge jóge France ñëw après ci lañ def live après trois quatre jours ñu def live right ma ne la combat bi c'est à Lac man xool naa li may xool gis naa li may gis ba pare mm-hmm. Mm-hmm. bëgg wax confiance en soi bi liggéey na si quoi non liggéeyu ci Face dañoo booloo jox la confiance de 45%. mais toujours dafa amoon tigu xaaral ma imposé c'est que la grosse amul ben moom imposé bëri Lac Rose il est venu avec périmètre de sécurité défensive et contre contre attaque bo xam ni il va jamais finaliser. na hmm. leer biñ météo waa face dañoo contact. mais au moins li Moustapha doon Guèye doon wax la grosse sauvé na loua waa Fass wax la grosse sauvé nako ni ñi Fils de balle day ñëw fete ko la grosse sauvé donc looluy victoire la grosse. hmm ñoom ñaar si wàllu doole yow pour yow kan moo ëpp doole tey dama la waxoon le quand deux corps est en mouvement la force ne s'impose pas hmm. Moi, tax amul benn yoon bo xamné ni la grosse bu du bàyyi mukk fils de balle la jàpp te moom du jàpp su jàppee nag y a ce qu'on la résistance résistance c'est pas la force. mais dama fils de balle boo xam bu jàppee day créer quoi de def nii mais tey dafa. barki démb la laa la wax de balle bu jàppee waxuma loon muy def laa. attaque fat dañ koo mu doon génne sax waa ji da fat mu leer na suñu laay fii gars yi ñu ngi seetaan doofu. mooy ko defoon góor a soq. naa dama la mu leer la gars yi dañu koy fat lam defoon góor a soq góor soq boo amoon ñu mel ne ay ñoom Moussa Gueye ci ginnaaw nga yaakaar ne Fils de Balla loolu def loolu góor soq. mais ëllëgu Lac Rose. ëllëgu Lac Rose mooy xam nga loolu mais nag Rose man man man man bu doon maay faas su xëyee suba suba dañ koy may mu semaine prochaine semaine prochaine. mu dam liggéey continuer entraîner li des bëri na. am na solo mais nu mu tuddati caatu yoo fa kii noo seen état yi ñoom ñaar noo ko gisee. allah ñoom ñaar ñëpp macha allah liggéey nañ de. liggéey nañ de caatu moo gënoon pare. non caatu yoo fa gënutoon pare ñàkk gënu Dakar yow futur champion la Dakar yow futur la futur la futur la na avenir mais xale la am na lu bëri lu mu war a régler gagné na mais il a commis même des erreurs yoo xam ne ni tey su doon bëreeg mu xaw a tolloog moom tuuti ci njoolaay dana ko sonal mbër mu xaw a pànk tuuti ci njoolaay da koy sonal comme baaxul cadre bi baaxul te loolu moo ko daanoon sax digganteem ak euh, ni ñu ko waxee sax Tyson mm, cadrage bi muy cadré noonu looloo ko daanoon diggante ak Tyson cadre fa mu defaraat ko. Eh, mais mais ñax moom ñax ban erreur la def. ñax erreur bi mu def mooy ñëw ci làmb te indiwoo dara technique tactique dara indiwoo. mais indi na forme bu baax. est-ce que est-ce que forme bu baax mooy daan mbër. des fois mu daan mbër. mais dama naan yéen làmb day am ngeen wax forme làmb mën nga am forme mën nga am lépp keroog booy ñaa lu muy di Modou Lo indiwu ko. yow ñaata mbër ñoo fi ñëw am doole jàpp mbër mënuñu ko daan ndax seen technique bëriwul du fi jeex. mais caat euh, yow xeex bi ngay gaa yi di waxal naan dafa day dafa mën a xeex yow. yow booy xeex ak moom c'est que bëgguma faire bëgguma wane ay faayam champion bilaay am na faa yoo xam ne su ma gisee genre jeunes yu mel noonu ñoom avenir am destin ci làmb doo bëgg a génn seen faay teg ko ci taabal bi lu tax parce que gars yi miinuñu ko gars yi maîtriser wuñ ko. Hmm. donc bëgguma bëgguma comme ni taxaw naa leen noo caat yow ni xeex baaxul affaire yooyu noonu ba pare. gaar yi bëgg ma leeral foofu su ma leeralee nag day aidé ñu bëri ñu bëri dañuy gis te bu boobaa bu boobaa dama koy déranger moom est comprendre fi may waxee. Hmm. léegi ñoom seeni coach ñoo war a gis loolu préparer ko.